Euh, mbokk internet yi géej waaye info ñu ngi leen di nuyu ñu ngi waat ak euh, Cheikh Omar Dia ñu ànd moom des fois ñu waxtaan ci mbiru plante yi de barki démb dégg ngeen ko suñu émission bi pass mu waxtaan ci affaire yu jinni tey nag dañuy waxtaan ci loo xam ne moo lëmbi dëkk bi maam mbiru euh, télé gi sëriñ bi boolu bëgg naa nga wax ñu télé gi lan moo ko waral tey góor yi lu ci ëpp dañuy wax ne 90 pour yëpp daanaka dañoo am problème boobu ci lekk gi la wala bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yalla di sant wa Guédiawaye info yépp di leen sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baax di sawar ci ñoo ngay ñoo pour ñuy waxtaan lan moy jariñ nit ñi faible sexuel likoy waral waral bari na ndoxu siti dina ko waral ci yaram hémorite dina ko waral ci yaram gor guy foy bopam dina ko dina ko waral ci bopam rap dina ko waral ci bopam likay waral dal bëri mais li li ma bala maa sori ci waxtaan bi li ma leen di conseillé mooy góor ñi nga xamante ni am na xeetu garab yoo xamante ni soo ko jëlee tey di nga yëg sa bopp carrément mais bu subaa dootoo yëgale sa bopp garab yooyu day tëlaloo góor yooyu baaxul parce que garab yooyu ba la joxee 10 bu subaa day récupérer 10 li nga amoon bu muy vin yooyu ne ko ñëpp di moytu parce que nekk na loo xamante ni lu baaxul la mais impuissance sexuelle incha allah képp ku mu ku mu dal muy dañ laa takk xala Wadai démé sa jabar bi dina bax wadai démé ci bi du leg léeg leg jigéñ ni liggéey la sax ba ñom ñaar ñëpp kenn du bax ngir fiir insha allah rabbi so ñëwé dinañ ko dindi si kàttani yalla bu dé émorite moko def dinañ ko dindi bu dé ndoxum site moko def dinañ ko dindi bu dé góor bo xamné dafa foy ay bopam ba nga xamné tay bu jonko non di saw sax da ngay gis mandiyum da fay yo fekk mi ngi jël bopam diko ko yoy yëpp suñ ko xamé dinañ ko dindi ak góor lu mu ak ci yëf lu mu nelaw nelaw yalla ak lu mu rek si kàttanu yàlla soo ñëwee dinañ ko dindi la jox ay garab yoo xam ne nan la traité di la traité di la traité ba nga wér si kàttan bu dee góor ñoo xamante ne nii léeg-léeg dina bëri na ñuy wax jigéen ji mënuta am doom jigéen ji mënul am doom jigéen parce que li si ëpp tamit si góor yi la góor ñi am na benn quantité sa mànni yu boo xamante ni su ko amul sa mànni yu du baax du munu balaa àgg fi mu war a nekk pour former wu nekk doom dafa yàqu wala bu àggee dafay dee su ko defee lu bëri ñu ngi koy jiiñ jigéen ñi fekk góor ñi lañ mais maa ngi wax daal képp koo xam ne loolu daf la dal si kàttanu yàlla soo ñëwee dinaa la saafara bu baax a baax dina la jox garab goo xamante ne dina la faj di la faj nga yëg sa bopp di la faj di raxas sa deret ba li nga soxla lépp yow sax di nga yaakaar ne bi garab gi pare garab gi dafa yokk sa sàkkara fekk ne sa sàkkara fattu bi mu fattoon ak sa sidi di bi ñàkk daw bi mu doon daw moo ko feccali ba nga yaakaar ne sax dina yokk fekk garab gi rek moom mooy baax te garab goo faj nga wér a dund lu yàgg doog di fajuwaat si kàttan yàlla léegi mais garab gi kii da ngay am ay nit yoo xam ne loolu lan moo ah, rek am na ñoo xam ne sax bala ñoo àgg si sëy sax daal di daan yooyu yëpp faible rek moo koy waral mais nit normalement parce que góor ni ngay sëy ak sa soxna ba yëg sa bopp ba daanu noonu la sa soxna tamit war a sëy yow ba yëg boppam ba daanu soo ñaar ñoo ko mun a ñoo ko bokk mais boo yëgee sa bopp sa soxna yëgul sa bopp da ngaa faible waaw góor war na a téye boppam ba yi muy yëg mu parce que ñoom ñaar ñoo bokk néegu sëy bi waaw mais yooyu yëpp ku mu dal bu soobee yàlla dinañ la faj dañ lay faj waxuñu la ñu jox la garab nga naan ko de après léegi léegi rek mu jariñ la bu suba jarja da lay faj ba ngay wër ci carton yalla lay fajj boobu ci ñaat fan la war mëna mën a diire. waaw mais xam nga xam nga xam nga fajj fajj deug sax du yag mais xam nga tamit xam nga góom bu bes ak góom bu chronique pour nga fajj len il faut dina am distance góom bu bes mom mën nga mën nga si def alcool léegi rek ray mu fermé wat mais góom bu chronique rek il faut nga xolli xam nga fajj nettoyer fajj nettoyer fajj ba bamuy wër rek te eh, bu soobee yàlla moom amul man samay faj leen lu ci yàgg ci kàttanu yàlla. la boo koy faj ci ñaata lay fan lay. non du yàgg su ma la joxee traitement yi ñetti yoon rek mun na koo bañ paase bu dee loo xamante ne lu la dal bu gaaw nii bu ma joxee traitement yi ñetti yoon moo bu dee émori tamit lu mu garaw garaw su ma la joxee sama garab benn yoon su ñaaree ëpp na waaw bu génnee day wér bu nekkee si biir di jooy sa biir day wér bu fekkee da laa def balotement lu mu ci mun doone da ngay gis automatiquement soo commencé naan garab bi tey ak suba rek da ngay gis daf lay commencé soulager quoi si kanam kàttan ci plante yi nekk mais garab plante la ñuy composé xam nga garab garab gii ngay gis nii ak nit ñoom la yàlla wàccandoo si àdduna gis nga oxygène bi nit di noyyi garab yi ñoo koy dégager gis nga gaz carbonique bi nit di dégager garab yi ñoom ñoo koy noyee kon nit ku nekk réew moo nekk febar bu la fa munta dal febar bobu garab yu fa nek ci ci ci dëkk boobu ñoo lay faj ñaar mo mo am xam ak ñàkk xam rek wa mais bo xame mom febar bu la munta dal si aduna fa nga dekk garab yu plante yi fa nek rek man nañ la faj ba nga wér si kàttanu yàlla euh, wa sant yalla bu baax rek di julli si yonente bi salaa wasallam da xamne impuissance sexuelle mom kep ku mu dal ñàkk kattan muy bepp xetu tele muy tak xala muy rap muy gaaw yeek sa bop muy man yu bu ñaka doy muy faible boo gaaw a kii bu mu si mënta doon rek si kàttanu yàlla soo ñëwee ñun dinañ ko traité ba mu wér faj la ba nga wér péng di sant yàlla di sant waa Guédiawaye info di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp suñu borom may leen tawféex dañu dégg samay wax te mu dugg seen xol dañ topp ko te képp koo xam ne nag aajoom naroo faju ci man rek bu mu ñëw ci man bu soobee yàlla sama numéro téléphone nag 77 la 543 42 39 wala 76 908 waaw maa ngi maa ngi maa ngi cité Sofraco Guédiawaye waaw si booru pëli si wàqi naan bi rek si rond bi jëm géej moom boo ñëwee ba ci rond bi rek soo ma woowee di ma jot amoo siis moo gën a see moo taxawee tamit si amoo bi si station bi soo wootee naa la orienté ba nga ñëw si kàttanu yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.